man def naa lu nekk def naa lu ne pour rek nga fekk fi laay quoi nëbb naa dàllam sax pour nga fekk fi yow ñëw ba ba léegi da ngaa ma ah, na dem na ànd ak xam ne te man dama la bëgg yow xam nga yow man sama xarit nga parce que nag mu indi chocolat chaque jour moo tax ma bëggoon nga fekk fi laay ngeen ànd yéen ñaar naa ko def lu ne mais da koy gis da ngaa yéex a ñëw. Eh, sama xarit taxawal kuy awa aw xamoo ko ah aw moom aw si yéen la bokk seen group bi yéen bëri ngeen fi de ñu fi ñëw bëri na de laay nekkul yow kese yaa fi nekk de awa mi ngi fii nu ngi fii ak Penda mooy loolu mais nag yow la gën a fonk nag waaw yow a fonk mais aw la ëpp xaalis parce que aw moo ni ñàkk parce que moom xaalis yéen amoo leen xaalis quoi waaye yow kan mooy awa si këru àdduna laay moom daf ma yëpp wala daf may fontoo nga ni yow seen kër gi ñeneen yeneen jigéen ñoo ngi fi ñëw ko dul man man dama yaakaar ni laa yebewu ma noonu sax de man sax damaa waxul loolu an sama chocolat tey dafa mel ni doo chocolat de si loxo bi nii chocolat newu fi man de waxuma la loolu yëpp sax man laa yëg laa mi ne bu rëy bii yëpp ndeke ñeneen a ngi fii ñëw sa chocolat bi moom naa ko indi garaawul instant yi dama doon nëmbatu paa bi moo tax yow baa xam nga ni ñoom fu nu dem rek ah mais xam naa fu nu dem mais yow tamit nag maa fàtte man chocolat yow yow xam nga moo tax man nga nekk sama xarit boo ñëw di ko indi. yow moom sukkalaa bi garaaw lebal ma ko ba beneen yoon rek sama rakk nga sama xarit nga nan liggéenti lii ba pare rek. ah baax na ba tey mën naa waxoon lebal yow moom nag may jox sax te du la laaj. waaw kon boo waxee lebal ma xam naa di ma fay. waaw parce que man dama lay liggéeyal dama lay liggéeyal fu ma toll nii dama koy gaata ñu fi ñëw ñëpp dama leen ci te leen xeelu am na ñoo xam sax bu ñu ñëwee mañ nëbb seen dàll pour bu ñu ñibbi sonn bu beneen yi bañ fi ñëw man yow rek laay faral daa dugg si néeg bi moo laay rek ma dem toog si biir néeg bi xam nga mag moom néeg bee ma dem toog laay moo ñoppati matt ma moom comme comme comme vampire aw moom moo tax moom li ngay wax yëpp baax na jërëjëf léegi wax ma fu nu dem rek ah, fu nu dem restaurant Amadou daal la fi toogante wax restaurant Amadou lañ jëm restaurant Amadou lañ jëm mais man comme xam man man damaa yeewu ma bàyyi ba aw si dugg si ma dee aw si buntu bi ma neexal ko kat ma ne ko aw yow da ngaa sañ sa tey nu ma merci ne ko tey moom na de mu nga fu bëri ma ne ko tey moom fan la xanaa di ngeen ma yóbbaale ma demal see am mais nag gisoo ma waaw parce que boo boo kiyee mu xam ne ma maa la ko wax bu beneen day gën a làqatu waaw yow mel ni yow gisoo ma quoi fa doon jaar noonu rek fa fekk ko fa waaw muy surprise quoi. yow kay moom jërëjëf rek man maa ngi dem seeka jaa gisoo ma gisuma la. laay moom bu dee daf ma yeboo la nëf ma miin moom naa si xam dara man. waaw dama lay wax nag li ngay def parce que laay yow la gën a kii quoi yow la gën a fonk ko ñeneen ñi waaw boo eggee nag muy indi scandale bu mag comme film yi noonu ñëw fekk ñu toog si table bi nga jël ndox mi euh, kaasu ndox mi xëpp ko ko noonu ngay def. parce que na may ragal la amul fit xaalis la am xëcc pirigu kii bi euh, awa bi jaxase ko waaw indi fa attroupement xaw a daanu rab awa day bàyyi parce que daan kii gëlëm bi mu am day dafa am rab day bàyyi waaw yow daal indi fa ngan di attroupement waaw bu loolu boo ko defee rek mooy loolu beneen yoonee beneen Saint-Valentin laay yu kese yëpp mais fii tey fii nga génn xale bi waaw yegsil yegsil néeg baa ngi. ay yow kañ nga may takk laa bëgg xam man yegsiwuma fenn. yow dégg nga woykat bi lu mu woy takk ma takk ma guddul jeex ma takk la xam si toog waaw garaaw loolu yëpp Abdoulaye ko lijjanti yegsil nañ. maa yegsiwul fenn laa te kafuma réew ma kañ nga may takk laa bëgg xam. yee kon yow caaxaanoo nii mais affaire yi léegi mu mat yow boobu léegi maa lay dajaleel waxoon naa la ko bu yàgg instant yi ma xool bu nu dawalaatee benn 3 ans 6 mois rek normalement war na mën a mat ah. mooy loolu quoi. yow huit ans boobu ba léegi matalagoo xanaa ba doon def journée juróom sax dina mat. ah mais nag def si nànk de sa yaay du mu laaj daa bëri de sa yaay mooy loolu brique la laaj un million ma laaj un mooy loolu doo xëy far ko de waaw booba léegi nag maa ngi jóg ko daan ko dajale léegi mu mat waaw loolu yaakamti un million kon sama yaay yow million la la laaj. yooyu loo xëy la mooy yéen sama yaay mi moom un million. pourtant nag nii laa ko xalaatee quoi ma ne entre dafa mel ni yëgul yaayam un million yu ma laaj quoi. parce que bu ko yëgoon ni si dëgg tànkam quoi dina xam ne lii waru ma ko laaj mais xam nga rek diggante doom ak yaay comme dafa jege am to affaire ba tax ma ni ba la si wax dara xëy na moom dina la si wax dara mais la ma laaj te un ko jox mu que tam toog jàpp njàmburam waaw lu des xew beeg yooyu man maa koy gérer ba pare nag ni daf dalaa wàññi ni ma dama la kaa wàññil man sa yaay xamul mu bëgg un million laaj ko ni na ko sama yaay laaj sama yaay moom dafa maa wóolawul wala man sama rakk yi trois millions la nu demee ak quatre millions moom nu million eh, taxawal yaw looy yow looy wax nii nga ni yow un million yi sa bi ma laaj brique bi dafa yomb un million dafa yomb ndax say rakk ay trois millions yow sa rakk ñen ñoo leen tag xanaa ay prince ñoo leen tag wala ay ministre ak député man damay loolu man dawal ko te seet fas laa nga may wax fii yu man daal di xoon naa la sama kàddu te gor laa xoon naa la loolu ma lay moo tax sax ak yàgg bu ñu yàgg ma tax ma jëm a lijjanti un million yi mais un million yi mënuma ko sax dama koy lijjanti waaw comme ne teg nga si yeneen deux millions bu ma la takk rek nga naan dafa trahi rek nangam sangam deux un million yu waaw un million yi huit ans yi daw na trois ans lañ si war a teg muy dix ans muy benn un million deux millions beneen dix ans trois millions beneen dix ans trente ans soo ko mënee xaar nice man nice ok nañ nañ si dem quoi parce que man sama kontaan rek laa daaj waaw chaque jour ma dugal waaw man sama temps laa jël 30 ans boo ko mënee xaar dañ ci dem comme yeneen feebar yéen seen waa kër. man la man maa xaarul benn 30 ans yow moom dawakatu sareet rek nga mën a doon man sax si boppam man maa la bàyyi ndax yow 8 ans mënoo sax dajale euh, million bu mat man bàyyi naa moom amoo xol li ngay ñàkk jëm yëpp man ngay toogloo 30 ans. ah yow koy amoo xol boobu ko am xolu xool ko xam ne dawalkatu sareetu fas kese la fas lay dawal waaw du ko taqale nga am xolu laaj ko ay 3 millions kooku war nga mën a am xolu toog. xaar ko 30 ans waaw parce que xol bi nga yoree moo graaw waaw pour man sa yaay moo siburu mais yow yaa gën a feebar sa yaay waaw yéen àdduna ngeen bëgg sama xol ngeen téye àdduna yéen man na nekkuma si monde boobu waaw bàyyi moom njëkk la kër bàyyi du ma ko def ñu naan dama laa trahir rek dama laa war waaw mais 30 ans su ko mënee xaar bisimilah nañ dem ko mënu xaar nag yaa xam quoi mais chef ba baa fàtte woo ma rek ba fàtte woo sama affaire bi ma doon expliquer keroog. affaire affaire ban fàttali ma ko gaaw de man damay dem de fàtte naa ko de. bon sama problème mu jawat gi ma la doon wax xam nga dafa fayoon nekkoon imaam dafa woon tey la koy jëlee indi ko quoi a fekk. xam nga te moom problème yi sax moo taxoon mu def parce que man nee moom heure wàcc jotee ma du wàcc damay taxawaalu ci mbedd mi quoi te fekk heure wàcc bu jotee fii damay fekk des fois da nga naa assoné garde guddi gi mais man normalement cinq heures dama war a wàcc saa yi mu assoné moom imam ñëw fekk ñu fekk ñu mu fa kon danaa imam li laa doon wax day wàcc taxawal te fekk mooy loolu quoi. sa jabar nag dafa war a xam ni da ngay liggéey ndax service bi élément yi ñoo bëriwul. te su ma amul élément bu fanaan faw yow nga continuer parce que yow kese yaa mën a gérer fii ndax yow doo élément de terrain tàgg woon nga ma kay man maa ko fàtte waa léegi li ñuy def. mais est ce que doo ko bàyyi mu dem xam nga lës bi ñaari fan jàpp ko sax ñaari jàpp moom fi la dëkk daanaka. mais moom lan la defati sax. bàyyi moom xel xalaatu ko ndax kii ba ma génnee léegi laa ko fekk sama pneu oto bi mu koy rocc ma ne gars yi nañ ko dugal yow gardeel kii moom si def la dëkk après man dinaa woo sa soxna expliqué ko allez ba suba jàmm maa ngi dem waaye def ma ko dara kii mooy loolu quoi lii parlaay la ko quoi parlaay moo ñu tooñ mu fi indi parenté quoi xam nga kii dama damaa xool ruu oto bi moom père quoi te naa ne moom bu génnee di jël oto bi rek taal dem te loolu danger la quoi comme man ma ko bëgg te yàlla tax ma ne xaaral ma dindi ko dem pomper ko ñëw montal ko ko quoi preuve d'amour quoi ni ma ko dindee noonu mu ñëw ni ma looy def nii ma ne ko man dama la bëgg yow te yàlla tax mu ni gars yi jàpp leen tëj xam nga loolu tamit tegul fenn quoi. yaayey jooy doo dem yaayey jooy doo dem yaayey jooy doo dem muñal waaw muñal man maa ngi fii xam nga la. da dem laaj sukar ak war nga si jàll bitik bi nga ñëw teg ataaya ñuy waxtaan ma yow parce que yow ma jox la ay science quoi parce que yow doon naan yow da ngay tàggoo moo baaxul quoi ay samay jabar mooy kii yooyu kenn du ko tàggoo da ngay rey say maam maanaam ah sama maam diw moo dee dee moom koo wax dañ la bàyyi nga dem. gis nga yow Leuz day yàgg rek mais na la bëgg bal nga dee parce que yow da ngay yëppaate quoi te mu mën sa morom quoi. jaabante bi ngay jaabante poste bi ak mbedd mi nga war a bàyyi quoi nit ñi am nañu yeneen soxla yu ñuy doxalu sama lif bi laay jël ma dóor la bal nga dee du mujj fenn voilà ta nga tëj sa làmmiñ nag man de saa yi mooy loolu. ooyu ma ëpp naa def bu fi door bal kenn. yow yaa ngi ni 4 mois rek nga toog gisoo sa jabar isaan yi yaa ngi ni bëgg grève de faim waaw te meraka te fonk waaw boo ma dooree bal à ville lay tëj doo ko gisati nang waaw nga ñàkk xarak buum ba yëpp xam nga man dama lay xelal dama lay scienceal waaw te tamit jàmbaa ngi ngeen jàpp te ko dugal nii si trois bi foofu te ko bàyyi mu yàqu loolu pertement la gën a jox ma ma tox su ma toxee léeba la léeb yu neex waaw ñu bëggee waaw sa jabaar su ma génnee suba wala gannaaw suba man naa fa ñëw tegal ko lépp waaw dinaa ne ko affaire bi du yow mais sa commissaire bi moo la bardé yow kii da la sa chef da laa nab taxaw moo ko quoi xam nga moo ma naa lay fanaan fii ak nangam sàngam di day fiir day fiir sa sona si ma mën naa garder sama bopp téyal nga jox ma caabi nga dem waaw ngay am fit da ngay tëj jox ma caabi. asalaamaaleykum Adja ani Umar mais koo dafa mel ni Abdoulaye de voilà fekkente ne fa Adja nag fan yëpp day may tooñ naa may ay damaa nopp sa mag beeg nangam sangam di rëy laa mel ba koog Adja Adja ngi si bit. eh ki nga may laaj danga ma kaa dénkoon yow. baal Umar Umar ñëw naa man la Abdou ñëw naa kaay dem. a ah, ok Abdou Abdou may ma tuuti waaye daa am lu may ranger maire bi nii si bitig bi rek maa ngi nit ñëw daa am lu ma koy ranger. <laughs> bàyyi ko foofu Adja. tapel la nekk si béréb di rëy laamin sa mag ji mooy loolu bu ko àndoon kër yi kër lépp mu koy wax te bu ñàkkal ak Adja xam naa ne amul fit bi ba leen foofu rek. Adja sa bopp bi nag koo tent da jàpp. Eh, dama bëgg nga dimbali ma laa la wax sa wax ju bëri ji nga nekke te man duma ma sa moroom. baal ma mais xanaa daa am foo jëm. isaani dafa mel na ngaa sañ sa de. waaye yow lii sax sa jàmm la yow da nga maa mënta bàyyi xanaa. taxaw tiim ma nii di wax rek. te yéen leen ngeen réglé ak ngeen xàmmee kuy seen moroom ak ku dul seen moroom. baal ma waa Omar yow gaawal toogaaw génn nag nga yegg si biir lool. eh Abdou 3 minutes rek 3 minutes instant yi saako yi laa koy rangelé nii rek léegi ma pare. <laughs> bàyyi ko foofu tey bu dee mu naan muy wax ba rek foofu Adja rek. mu xamul ni jaxase naa ko Adja bu yàgg ba foofu rek. li ngeen di wax yëpp dégg naa ko ndax man dama leen a faalewul léegi ndax du ma seen morom surtout yow moom. mën naa ko waat man bokkuma si de ñoom Omar la ñoom seen groupe boobu la xaw ma ñoom noo yara di ko te ñu may xale lañ sax yow Omar nu mu nekkee sa rak noonu la nekkee sama rak maa ko mag ñàkk ku ma ànd rek moo tax may ànd ak ñoom mais su ma doon xaritoog yow bàyyi naa leen ñoom bu yàgg. yow kan ngay def xarit yow man yéen juddu woo lu dul bëgg dee mbaaru sa yéen yu gudd yi moo leen nax. baal ma. li nga wax Omar yëpp wax na ma ko te soo ma moytuwul sa ngandaay bi yow. barki téere moom yàlla waxuma ko ay Omar Omar génnal Omar loo wax Omar tam Omar tam muy dugal rek daf may waxal loo xam ne waxuma ko moom nii lay def. waxaguma sax ngay përti përti di kon kay yow la. xaw ma lan la demee xam naa du jàmm du ma waxal jàmm. waaw moom fu mu yenn sama deddu fu baax Omar génnal Omar wuyu ma man sax mun maa soxlawul xam dara su Omar lu ma wax wax ji daal li mel nii te jàmm moom lu ko waaye amee jar na ko man maa ngi ñibbi Omar soo génnee nga ñëw suñu kër waaw yaa tey li ngay def nekk si biir du topp topp sama kaw maa ngi nit ñibbi booy xoola pare naa pare naa maa ngi nit ñëw yow sama dépense. yow boo dee sénégalaise dina ma jaaxal instant yi Sénégal gi yéen a coupe d'Afrique nit ñaa ngi kontaan bëgg waaw tu xumbaay tu rumbaay ñëpp di bëggee yow nga fi ni këyit rek yow est-ce que doo somalien ah yi rek sax boo ko toggee kenn du ko lekk ndax ñun instant yi dunoo bëgg waaw ñun nag duñu supporté yow toogal fi nga toog rek yaw ni këj nii rek mel ni euh, ku nu rey sa doom. waaye yow nijaay yow yaa man soo sa yëre topp xale yi ndaw yi mel ni yow li nga ñaan rek doyul. maa ne la ñaan gi rek doyul affaire yi gën a farul la ñun noonu footballal ñooñu duñuy julli ci terrain sax ñooñu bu ñuy dóor kufara duñuy julli bu ñuy dóor corner duñuy julli bu ñuy def plante yi duñuy julli ñoom ñoo la dàq ñaan foofu waaw affaire nag gën a farul la ñoom duñuy ñaan ñuy ñaan waaw ñu it ma gën a farlu rek waaw ñaan gi dem si porte waaw yàlla ji mu gën a far farlu lay kii waaw man daal li ngay wax lépp man loo sama yoon nekk sama dépense daal laa soxla yow nopp la sa bopp nga bañ ma laaj ay dépense nee naa la tey dépense amul ndax man fële ma nekkoon sax si fan rouge bi man dew ma fan zone fan rouge laa demoon waaw foofu xool naa fa sama gars yi sama géer yu xool xam daanu ma jàppalee dara mais gisuma leen mais taruma leen sax tey ndax tey maa bëgg waaw reer gi nag mooy loolu ñun suur nañ waaw ñu koy maasale dama ni la mag day def yi fu mag nga topp xale yii rek fàtte sax joxe dépense sa kër maa ni la tey affaire mag ak xale amu fii lii affaire u nation la affaire u dëkk bi yëpp la ñëpp ko bokk waaw xale yi may bëggee waaw lu ma ko yàqal fenn bu ma julee fajar jot naa sama kurus euh, ñaan lu may ñaan ba pare waaw lu si des samay génn si biti jaayante koo xale yi waaw du ma yóbbalee dara si feet gi boo julee ñaan rek doy na waaye yow foo jaar rek foo nga boole si lu si bokk ñu naan la pas Sénégal pas Sénégal nga sol sa yëre yi rek eh waaye dëggal loolu pas Sénégal bi may wax la sama xol di sedd parce que koñ bi yëpp pas Sénégal pas Sénégal lañ may wax waaw ma solu rek doon Sénégal international waaw loolu moo baax pas Sénégal googu man patriote laa wax naa la ko guerre mondiale ba léegi man musuma dellu ginnaaw si réew mi waaw moo bëgg sama réew bëgg sama drapeau waaw yow nag toogal fii rek eh, ti fa sa kanam jàpp sa ñaamu dégg man maa ngi dem jibili jiwaat dama ñëwoon pour naan si ndox te xam naa yow muy toog doo ma may ndox bàyyi ma génn lijjanti ko si biti sama yaay moo ma yónni nee na nga takkal ma téere bu nga ko doon wax bi. xay ngeen ne lan yow nga ne sa yaay lan la la wax. nee na tam saafara bi nga ko doon wax bi soo paree nga sang ma si. ya waaye yow sa yaay man pédophile la man teg wala man yow eh xoola waa koñ bi nañu wax xaw ma dara ma nangu mën nañu wax euh, aayu moo ma nangu mën nañu wax sàcc laa ma nangu mën wax day fen ma nangu lu bëri mën nañu ko wax ma nangu waaye pédophile kenn du ma ko wax ma koy nangu waaw day siifaate kenn du ma ko wax ngay nangu sa yaay na la mën a yónnee doomu jigéen ko na ñëw sama néeg euh, fekk ma fi man naan naa ko sang yow ñaata at nga man 9 ans laa am lan la woon da nga gaaw man damay fooyi. Eh, waaye yow toog ma may nga naan ma may fooyi man maa la sangul tey sangu ma la ëllëg takkalu ma la téere yow nit bu fi duggee fekk ma lay takk téere lu may wax. ah préféré la may wax fii yooxu ah, gars yi daw dóor fii wala ñu yóbbu police ma tëdd fa 10 ba pare ñu am atte ndax viol lu may jiñ bu boobaa te boobu yàlla xam ne ni man ki eh sikk naa bépp sikk sikk naa bépp sikk waaye eh, ay pédophilie yi bokkul samay mbir ba yee saa ngeen mu yow xanaa tey ndax kere ba ma ànd ak sama tante Aida yaa ngi ko doon wax ñëwal la. sa tante Aida nga wax ba nga nee tante la mbir ba felonku laay waaw boo nee ko rek ça veut dire ma gën a la ay vingt ans wala dix ans mesure la magum jëmm la kooku du ma ko def loolu ko neexul mais yow gone gu ndaw ga fete goo sax si neen yi ñaar bokkul sa tante Aida gisuñu mu mel gisuñu mu bindoo waaw yi ñaar bokkul bu boo tëkkalee sa bopp sa tante Aida te yow bis boobu waxuma la demal sa saal ba nga toog ah ñaari mag la ñuy déglu keroog maa ngi la doon dégg ndax maa ngi woon si saal bi toog di seetaan Mickey li nga doon wax yëpp. dégg léegi sax man wax ji dama siy bëgg sonn. waaw yow ku ku ku dañ ñeeral nga ko wow la nga ku la nga waaw léegi daal wax ji dana dama say ni ko sëriñ bi nee na sanguma sanguma tey sanguma suba voilà te yow bu ñëw di sama kër man sax boppam may tux waaw parce que yow sa làmmiñ bi nga yor ah, ak li ma fàttalee sa tante Aïda nu ma ko wax xam naa ni ko wax ñëpp waaw te jël ma sa gémmin gii te nga ba ma gone gii xoola defal ma lu nga may defal benn yoon man naa la siiwal si koñ bi yëpp damay dem aha dégg nga dégg nga li nga wax waa léegi wax ji doy na waaw numéro courtier lay wër waaw comme yoo xam nga waa koñ bi yëpp utal ma numéro courtier waaw ma tux damay tux yàlla na ma yàlla musal si yow ak sa làmmiñ ak sa ak sa ñeme gone du wow bët nga wow bët waaw te sa yaay nag maa yaakaar juru la parce que bu la juróon du la jël ne demal si kër sëriñ diw na la sang takkal la téere waaw loolu xale boo force war ko def loo ma sama ak sa doom waaw sàggan sa yaay dafa tëxit tëxit tëxit dëgg mooy sa yaay toog fu mu toog lu mu la dàqee rek ci seetaan filmam yooyu lay wut moo tax mu la demal si kër sëñ bi mu kii la waaw demal ne ko nag sëñ bi sangul tey sangul suba takkalu téere tey takkalu téere suba waaw sëñ bi sax nee na day tuxu waaw jàmm ni ñooy man doo ma tëj doo leen ma tugal waaw acca demal rek yow